Euh, Fawzeyni tey lan nga ñuy proposer comme ay secret. waa kay soxna Kayna ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax soxna Aïssa ak soxna Kayna. Kajoor Kajoor bu baax bi kàddu yi am solo yi. xanaa du jëm ci wàllu xaalis lu koy maye di ko yombal. di maye xaalis. waaw ndakate ndakate alxuraan indi na luy tax nit ki wërsëgam di yomb te du sonn. ki nga xam ne moom doyloo na loolu fekk na alxuraan mu doyloo ko fekk na bu doy mu doyloo ko ndax yaakaar naa luy wér rek alxuraan a ko gën a wér tey nag comme ñu bari moo tax ñu jaar ci ndox mi façon liggéey bi na ñu koy liggéey ngir bëgg am wërsëg te am na ñu bëgg am wërsëg te bëgguñu ko bëgguñu ko am ngir puukare dañ koo bëgg am rek ngir jaamu ci yàlla mën cee suturu dimbali ci ay doomu aadama dimbali ci ay doomu aadama. mën def lu baax ñooñu nag laa bëgg ñu déglu ma bu baax te jëfandikoo bind bi ma leen jox képp koo xam ni dangaa bëgg suñu borom ibil mboolee mbooleem bunti wërsëg yi dangay jàpp njàpp mu sell nga dugg sa néeg taal cuuraay bu neex su ma nee doon cuuraay libaat moo gën bu ko mënee doon bu ko mënta doon nag cuuraay bu mu doon baax na waaw bu ko defee nga daal di julli ñaari ràkka naafile ko daal di sikkar baat bi yàlla faxul yàlla faxul nga sikkar ko ba muy cent dix soo noppee nga daal di ñaan sa wërsëg nga def ko ba muy trois jours même heure wax na ni loo ñaan suñu borom dana la ko may. bi ci gën nag mooy ginnaaw julli ginnaaw julli gee boo jullee gee ba noppi nga def ko waaw nga def ko trois jours rek nga xool. ba tey ku bëgg yàlla ubbil ko mbooleem butti wërsëg yi ñaari turi yi nay bari lu mu koy wax amul nag lim lu mu gën a bari gën a baax muy yaa moxti ak yaa moxis ngay sell comme ça di ko sikkar lu bari lu mu gën a bari gën a baax yaa muxti mooy firi aji joxe ji yaa moysu mooy firi aji tedd ji nga di ko sikkar lu bari tàmm ko di ko sikkar ku koy bari looy sikar suñu boroom dina la tuur ci wërsëg lu la jaaxal te it dina la defal dund bu neex loolu yàlla dina la ko defal lii nag ab naafile la boo xamante ne ñeenti ràkkaa la naafile gi nag képp ku bëgg a bëri wërsëg wala nga bëgg a ñaan yàlla loo xam ne boo ko ñaanee du la delloowaat ñaan googu na ko def ñeenti ràkkaa lay doon ràkkaa bu njëkk ba ginnaaw faatixatul kitaab muy alhamdulilahi rabbil alamin mooy faatixa dangay jàng quinze alam nasara waaw quinze ngay ngay jàng ci benn rakk bi rakkaab ñaareel bi ginnaaw faatihatul kitaab nga jàng seize alam nasara daal di sëlmal mhm. boo sëlmalee nga daal di jugaat kàbbar rakkaab ñetteel ba ginnaaw faatihatul kitaab nga jàng alam nasara dix-sept fois rakkaab ñeenteel ba ginnaaw faatihatul kitaab nga jàng alam nasara dix-huit fois boo sërmalee nga bañ a wax ak kenn daal di daal di jàng arab nasara 92 soo noppee nga ñaan sa aajo suñu borom day gëddi malaaka yi pour ñu defal la ko. Ah, loolu am na suñu borom day gëdd malaaka yi pour mu def pour ñu defal la aajo jooj ba tey alam nasaraat ku ko bind ci xobu guro mu bañ a am maska maanaam bu alxuraan wàccaale wàccaalewul maska da koo dab da nga koy bind rek tomb ko ci xobu guro su ko defee ñu defal la ko téere loxo nga takk ko ci sa loxo ndajoor dootoo lijjanteeti lu dëgër bunt boo fëgg yàlla tijjil la ko ba tey basmala muy bismillaahi rahmaani rahim soo ko. nga baal ma balaay basmala mooy lan. maska mooy comme ça. mooy mooy ci kaw. Ah, ci suuf ah, koy tomb rek bañ koo su ko defee nga bind bu ko defee bu boobu jàllee mooy bismillaahi rahmaani rahim. Mhm. soo ko werdee 313 mooy limu jëy suuf. boo ko weerlee trois cent treize ba ba pare nga teg ci salaatu gi allahuma salli ala muhammadin wa ala alihi muhammadin wa sallim cent fois waxtu wi jant bi fenk bisub dibéer dibéer mooy dimanche benn yoon nga koy def ci sa aaju ci sa ci sa ci sa dund nga ñaan sa aaju yëpp ma waxaat ko mhm. basmala da nga koy weer du trois cent treize mhm. maanaam bisimilah bisimilah bisimilah 313. bisimilah rahmaani rahiim. ah da ngay ah. teg ci allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim cent fois. waaw nga ñaan yàlla saajo sunu borom dina la ko defal. ban waxtu ci bésub dimanche. mën naa doon boo jullee fajar ba noonu. lii nag ñi nga xam dañuy xëy di wuti. Hmm. na commerçant yi ñoo ko tax a jóg. ak taximaan yi. kuy xëy di wuti rek. bindal lii nga def ko gaaw sëlmoo ko daal di am wërsëg ci jour boobu. mooy inna haza la risquna ma lahu min mu ngi ci sóoru saat nga bind ko trois fois wan na maarifu masfufatun mu ngi ci sóoru xaadi bind ko trois fois inna batsa rabbika la sadidun mu ngi ci sóoru xaadiyaati nga bind ko trois fois rabbana tax naa baynana xawmina bil xaqi wa anta xayrul faatixin mu ngi sootul laxraaf nga bind ko trois fois def ko saafara sëlmoo ko sëlmoo ko trois jours loo wuti am ko yàlla day leeral yoon yi ba mu leer bu dee bii nag nga xam ni moom laay bëgg a joxe soxna Aïssa ku amul 40 ans bu ko def ndax nit ñi dañ lay bëgg ba mel ni weñ ñu gis ay lem waaw dañu am ci yow cofeel ba pare wërsëg dina jóge penku jóge sowu jóge saalim jóge gànnaar jëm si ci yow waaye ku amul 40 day teel ci yow muy saari alxuraan yi tàmbalee isaa isaa waaw isaa yi tàmbalee isaa yëpp isaa zulzilati juróom-ñaari saar lañ waaw góor waaw kumba léegi juróom-ñaari saar yooyu soo ko bindee ba mu jeex lu am lu am masque moom it tomb rek lay am saar wu nekk day ànd ak bismillaahi rahmaani rahim nga def ci parfum miski parfum saxfaraan parfum maayil wird def ko saafara sangoo ko trois jours insha allahu rabbi maanaam sunu borom dana dana mel ay jinnee lay jox mbaadu la ngay yor day bàyyi waaw saar yi ñooy bismillahi rahmaani rahim isaa waqaatil waaqihatu laysa li waqaatiha kaasibatun xaafidatun ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isaa jaaka almunaafiquuna xaaloo nashadu innaka la rasulullah wallahu yaxlamu innaka la rasulu ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isaa samsu kuwiraat wa isa nujoomu inkadarat isal jibaali suñuraat ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isaa samaamu in fatarat wa isal kawaakibu intasarat ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isaa samaahu in saqat wa asina li rabbiha waqat ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isa zulzilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu asqalaha ba mu jeex bismillahi rahmaani rahim isa jaa nasrullah wal fathu wa raayta nas yadxuluna fi dinillahi afwajan fastaxfiru bi hamdi rabbika wastaxfiruhu innahu kaana tawwaaba ba mu jeex nga def ko saafara boo ko defee saafara def ci parfum miski parfum maayul wirdi parfum saafara ku amul 40 ans bu mu ko def. soo amee 40 ans def ko lu la ciy fekk. maanaam boo amul gàllaaj soo ko amul. nga def ko maanaam man aw ma ko def ko lu ma ciy maam nga war am gàllaaj ndax wax jay tax. ah te yàlla bu yónni am yonente sax il mu am 40 ans hmm. waaw. ayca dese nañu. beneen euh, ñetti simili ñu hmm. daal na beneen bi ci topp. waaw euh, jële nañ ci gaa yu baax yi su ma nee gaa yu baax yi nag mooy xulafaawul arbaa ñi daan ànd ak sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu wax ni surtout Yaasin soo ko jàngee quarante fois quarante et fois bañ a wax ak kenn bala guddi lay doon nag bala ngaa tëdd nga teg ci ñaan gii may bëgg a wax boo tëddee di nga fekk wërsëg bu bari ci sa bopp lal boo tëddee loolu fu muy jóge boo yeewoo da ngay fekk sa sa wërsëg ci sa bopp lal maanaam surtout yaasin wal quraanil hakiim innaka laminal mursaliin ala siraatal mustaqiim soo ko jàngee ginnaaw gee 41 fois yoo xam ni waxoo kenn nga teg ci ñaan gii may bëgg a wax daal koy léemoo tëdd boo xëyee di nga fekk wërsëg ci sa bopp la sa mu ngi jóge ci Seydina Alioune mi ëpp xam-xam ci doomu aadama yépp ñaan gi mooy allahumma innaka yi fi samaa'i fa axrijhu wa in kaana fi fi lardi fa axrijhu wa fil bahri faslilhu wa in kaana bahidan fa xaribhu wa in kaana xariban fa yasirhu wa in kaana xalilan fa kasirhu wa in kaana kasiran fa hawidhu wa barik lii fii warsuxni min xaysu axtasibu min xaysu dafa xaw a gudd waaye ñaan googu boo ko boolee surtout yaasin mm-hmm. soo xëyee di nga fekk wërsëg ci sa bopp lal yàlla suñu borom ci boppam moo la ko fa indi ñi nga xam ni nag fi may mujjee mës koo def mësuma koo def ndax euh, dama dul am soxla boo xamante ni dina ma ko jaral waaye wax na ni képp ku ko def sunu borom dana la ko def. ndax digal nga nit mu def ko am lu mu ci gis. digal naa ko koo xamante ne sëtub Sëñ Abdou Khader la ba mu ko defee lam lam ca am yónnee na ma ko ndax moom dafa ñëw ba sama kër ma jox ko ñaan gi mu liggéey ko def ba mu gisee da caa yëkkati daal di may yónnee. lan la ci gis loo ñu mën a wax ci misaal. wërsëg bu bari ay takk xaalis dafa gis xaalis bu baree bari. kii na. alors man question bi ma bëggoon na laajte mooy wërsëg bu bari bi da ngay yeewu fekk fa bu bari wala sa wërsëg day gën a yokk boo demee di jënt euh, mu sotti wala wërsëg bu bari bi ngay fekk sa bopp la lan la exactement. xaalis ngay xëy fekk ko ci sa bopp la. ah Aïcha di faaw ñu def ko. da ngay xëy bu bari ci sa bopp. waaye amaguñu 40 ans bëgg xaalis. <laughs> bari na kilifa yoo xam ne dañuy tëju. loolu lañ <laughs> uh-huh. duñu xëy duñu gont aajo ju nu am mu faju yooyu li ñuy jëfandikoo xam-xam dafa am. man ñaari question laa. Mhm. bi njëkk bi mooy euh, digle yi nga joxe mm, digle la yoo xam ne mu ngi tënk si si xam-xam. mais est-ce que aussi ki koy def automatiquement rek de dina dina am dina dina ko gis cest dire est-ce que amul lu muy àndal maa xam par exemple man ma fanaanoo naan man di ba ñëw toog xëy def loolu. yaakaar nag ne dinaa ci am dara wala lan lay àndal en fait ñaan yi nii nga ñaan lan mu lan nga ban lan mu ko est-ce que amul lu ko jiitu. Hmm. loo loo war a mën a def yow laata nga jublu si si si ñaan yooyu. waa dëgg la wax xaw ma ndax comprendre nga sama question. mënoo ànd ak sobe di ko solo xam nga suñu borom dañuy ñi may nangu. mooy way way ragal yàlla yi. Hmm. ragal yàlla nag mooy ñi nga xam ne bis bu ne ñu ngi bàyyi xel yàlla di la li ñuy def. ndax ñaan moom dafa laaj sellal moo tax sax nit ki léegi-léegi muy xeeb boppam mm. di dem ci ki nga xam ne yaakaar na ni moo ko gën a ragal yàlla muy sàkku ci ay ñaan tey ñi nga xam ne dañuy ñëw ci man di sàkku ay ñaan ñëpp maanaam xaw a cee xeeb seen bopp daan ni naa dem ci sëñ Mamadou Lamine Niang seen borom secret yi mu defal ma tawaafu sama diggante ak sama borom moo tax ñu ni gémmiñ goo mus sa ñaan yàlla gémmiñ goomu mus sa mooy yàlla loo ci ñaan yàlla suñu borom nangul la ko te gémmiñu jàmbur mosoo cee munoo fexe ba mooy ci yàlla ndax abal ma sa gémmiñ ma mooy ci yàlla mu amul moo tax am na ci boroom xam-xam yoo xam ni ñoom munuñoo ñaanal seen bopp waaye lu nu ñaanal nit mu nangu moo tax gis ba kilifa yoo xamante ni tamit lu nu ragal ragal yàlla boo leen waxee yàlla nga fi yàgg dañ naan amiin ku ci mel ni sëñ Saliou Mbacke bu musaan di jàng alxuraan leen daan tax mu dagg njàng mi président sax bu ñëwee day xaar ba mu waaye boo nee asalaamaaleykum lenay tax mu dag njàng muy waaleykum salaam continuer di jàngaat xale bu ndaw bu ne ko yàlla nga fi àgg mu dagg njàng mi ni amiin moo tax li mu dund ci doomi sëñ Tuubaa yi kenn dund ko am na solo ah, deuxième question termine question mooy euh, li muy def nii di joxe ay digle ak yooyu bon am na ñoo xam ne secret lañ ko garder en fait euh, moom yow lan moo tax nga nga nga préféré waaw nga parce que bu doon ñeneen dañuy ñëw junj rek. Mhm. après attirer le ver ñoom en fait. Mhm. mu ne yaa quelque chose je sais yow lan moo tax nga opté pour loolu donner généreusement di joxe secret yooyu noonu. maanaam man dimbali nit ñi ñoom moo ma tax a jóg dimbali nit ñi rek moo ma tax a jóg te am na ñoo xamante ne ñu ngi xëy di gontu di sonn te mënuñoo gis benn résultat ci seen boppu te ay jafe-jafe yu ne ci seen yaram fu mu ne nit ki bu bu jugee fële am ay jafe-jafe ci boppam. bëgg bëgg a xam boppam su ma ko fanaanale ay mbiram muy listixaar su ma xëyee naa ko wax li muy dund ak li ci kanamam ak jafe-jafe bu mën a ne ci yaramam ak lu ko waral am na léegi nag fi may fi may fi may tënkee soxna Aïssa waa ñu tëj foofu ci benn simili rek muy ab dund lu koy yombal di ko saxal dund dafa baax te moo waral gars yi di wax danaan président wàññiwul dund bi lii nag képp ku ko saxaat yow dootoo basé ci jiitum réew doo doo manqué ceeb doo manqué diwli doo manqué <laughs> te lu yomb la te mi ngi ci alxuraan. suba nga koy liggéey ak ngoon muy nasrun minallahi wa fathun sul xawatil alimatin nga koy liggéey 66 par suba ak fattaahu wahaabu nga koy liggéey ça veut dire da nga koy liftaa wahab li yow soxri bi kullaana nga koy maanaam nga koy nga koy nga koy weer bi 66 muy nasru minallahi ina laa xarib inna allah warasahu sul quwati wal matit nga koy liggéey suba ak ngoon saxal ko boo koy def yow lu mën a xew da ngay am ab dund merci beaucoup jaajëfal nañ la bu euh, baax a baax euh, Fawzeyni borom secret yi secret yi am na solo euh, ku ko mën di def rek nga def ko ndax nag mbindum yàlla la nekkul loo xamante ni ay fétiche wala xam-xam bu ñuul ak yooyu lii alxuraanul karim la donc mu ngi ci kaamil bi lépp lu mu fi wax mu ngi ci kaamil bi hmm? ah, tàmbali ko ci bismillah ba alif lam mi mu ngi ci kaamil bi ah, donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax parce que gis naa ni ah. chaque fois da feelu <laughs> bu bu yëkkatee affaire alxuraan dégg nga feelu ko ne bu nga ñu sa bopp de. ah man ndar ndar laa xaw naa jàng tuuti rek ah nañ la mais nit ñi nañu xam ni que nag ni du invité. mais mm-hmm. rubricard la ah, c'est un chroniqueur dans la matinale chaque mercredi dinañ ko dalal euh, mu baaxee ñu xam-xam ah, bi nga xamante ni yàlla may na ko ko ñu ngi lay jaajëfal ah, bàyyi la rek nga tàggatoo ak mbokk yi. waaw yàlla ñu yàlla may dégg. Mm-hmm. ak ak topp. Mm-hmm. te yàlla xiir ñu ci ñu koy ñaan. ndax dafa wax ni ki ma gën a mere sama jaam bi ma gën a mere mooy ki xëy ba ngoon te ñaanu ñaanuma kooku xam nga ni wuute na ak doomu aadama yi nga xam ne boo ko ñaanee bu subaa nga ñaanal ko mu suñu borom nee na ki ma gën a mere mooy ki xëy ba ngoon te ñaanu kon loolu képp koo xamante ne rek euh, dese na laa leer boo duggee ci 7TV euh, seen sig bi di nga ko gis bu baax maa ngi siyaare euh, techniciens yi mm. di siyaare ñu ma bokkal plateau bi ak ñi may seetaan ci réew mi ak bitim réew ak euh, Papis ak Soxna may Maymuna sama xol seet na jërë ngeen jëf. jërëjëf merci beaucoup na alors jaajëfal nañ la. <laughs> jaajëfal naa la également Aïcha merci beaucoup di jaajëfal aussi borom secret yi li mu fi wax lépp am na solo donc merci beaucoup également à Dija Flavour bi nga xam ne moom moo jaar ci coiffure bi depuis bi ma ko defee ba léegi les gens ñu ngi may laaj ndax coupe la wala lan la daf ko juste plaqué donc euh, mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax ndax samay cérémonie lépp lu ma xewle rek moom mooy jaar ci li nga xam ne mooy make-up beet lépp donc mën ngeen ko contacter sur le 77 600. Euh, 824 73 00 moo ngi nekk fële ca Nord Foire di ko jaajëfal bu baax a baax. sama xarit boobu noonu. allez je vous donne rendez-vous incha allah ba demain ñu daal di ñëwaat ci yeneen euh, astuce incha allah. jërëjëf kii naa. Mhm. Kajoor Grégoire nee na sa chocolat di ci douche bi du la ko baal <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo. Grégoire man du ma ko tontu sax parce que <laughs> li mu bëgg xam naa ko en tout cas jaajëfal nañ ne. <laughs> Kajoor chocolat amoo foo ko mën a lekkee fu dul ci toilette. lu dul chocolat di nga ko fa yóbbu Aïcha bul ma wax loo. maa ngi nuyu ñëpp en tout cas di dig daje jaajëfal naa. merci beaucoup di jaajëfal Grégoire. Mm. di euh, souhaiter un prompt rétablissement. déplacement à Charline. Charline Rafidi. On l'a pas vue ce matin parce oui. qu'elle est un peu souffrante, mais mhm. elle va reprendre la forme très vite. Inch'Allah. Nuno, on lui souhaite un prompt rétablissement à Charline. Allez, merci et bon rétablissement à Charline Rafidi. Merci à vous, amis téléspectateurs. Merci Alassane, Weuz, Grégoire, jaajëfal nañ leen dig daje ëllëg inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Fawzeyni, jaajëf. Merci beaucoup.